ci dàq sant nit ñi moo ci dàq sant yàlla nit ki nga xam lu ko nit defal lu tuuti mu sant ko kookee lu ko yàlla defal tuuti dafa sant ki dàq sant nit moo dàq sant yàlla liñ bëgg ci moom mooy lu ko nit defal lu tuuti tuuti mu sant mu sant ko mënee delloo njukkal si na ko def comme sunu mag ñi daa def ñaare nga yàkkal leen ab yàgg ñu wut lu mel ni kilo soble def ko ci ëpp ko delloo la ko loolu yi lu mat di bàyyi xel la ba fi mu toll nii muy sant delloo njukkal lay teg delloo njukkal boo demee bu mënoon delloo njukkal ne nga doog a wax nga doog a sant doog a ñaanal doog a ñaanal kooku yàlla